yéen kaay yeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye jërë ngeen jëf temps des complications maanaam jamonoy lëj-lëj loolee la l'observateur gis ci tànn gi président Macky Sall war a tànnal waa Benno Bokk Yaakaar seenub candidat bil yéene kay bi li wolof yi naan yàpp xaj bu seddee soof ca ña koy lekk mooy li mu seetlu ci choix candidat bu moos présidentiel bi ndax li xaar bi yàgg ak li ñuy yaxataan tax na ba ñi bëgg a doon candidat gën a bari moom l'observateur ngi ñuy baaxeet ay xibaar ci lijjanti yi gaay yi di lijjanti ci suuf ndaje secret yi am ba ci yi état majeur politique yi dëkk ki war a tànn source ne nañu ay kalkinam moo ko sànk taw wekk ñoo lawlawal bi muy def ci tànn gi mu war a tànnal waa Benno Bokk Yaakaar seenu candidat loolee moo ko dugal ci góota gi mu nekk jamono ji moo ki ñoñam ndax li mu bëggoon muy denc turu ki muy tànn toll ci parrainage yi nga xam ne bu boobaa ku mu tànnu lit yoonu bopp di samp sam dënd di demal bopp xel moomee mu amoon ak pexe yooyee mu nasoon journal bi nee nañu aw na yoonu yàqu Walf Quotidien ba ba léegi président Macky Sall joxegul turu candidat bi mu war a tànnal waa kër Bokk Yaakaar yéenekaay bi nee nañu li muy bañ mu Macky Sall moo di teel a wax kan la bu ko defee ñi mu tànnul te ñu bëggoon a bokk mën a am temps waajal seen bopp ngir demal seen bopp las yi ne nañu ak loo ci mën di dégg daal mooy Macky Sall moom yàkkamtiwul dara mi ngi ci suspense gi di doxal kumpa gi ba ca cappaandaw la ci jamono ji ko waa këram yi di xaar ak di déglu ci la ñu ci xët mu njëkk journal am na lu mat téeméeri personnalité ak ñeent fukk ak ñaar yu def seen pétition ba signé ko ñu ràññee ci ay professeur université i député yu ko ba xaddu ci dam boole ceekit parti Ousmane Sonko bi ñu tas mu di Pastef ñu delloo ko seeni borom Vox Populi nañu borom dëj baa ngi jooy seenub dëj ne waa parti Pastef fas ñu yéene toog di seetaan parti bi di mujj ci amoon na fi nee na ñuy fas ñu yéene toog di seetaan ñuy xañ seen leader Ousmane Sonko mu bokk ci élection présidentielle 2024 yi démb bi député Yewwi Askan Wi doon def ab conférence de presse journal bi ne nañu dégg nañu coalition bu bëgg a ànd ak moom ñoom waaye yeewi askan wi le nee nañu wax nañu démb ne ànduñu ci ministre intérieur bi fi nekk di Antoine Félix Diome di organiser élection présidentielle yi Sud Quotidien nañu yeewi yëngu na ñaawlu nañu démb li ñu jàpp ne dafa am ci réew mi ay nit yu ñu tënk xañ leen seen liberté ñaawlu nañu it yi ñu singili ba di leen wër ak jàpp ko dugal ci kaso bi wax nañu ci ñuy tuddee ay détenu politique wax na ngir siyaare ji sëriñ Muntaxa ca audience ba journal bi nee nañu mbiru Ousmane Sonko dana bokk ci li délégation bi di waxtaane ak sëriñ bi Sénégal amatina direct news ak l'observateur xëy bokk di xibaar ne kii di Omar Ba mi jiite association des maires du Sénégal tànn nañu ko démb ci Abidjan def ko président du conseil des collectivités territoriales bu UEMOA l'observateur nañu moom ak doomu benn bii di Luc Atrokpo ñoo ko doon xëccoo Omar Ba jàgga ca Côte d'Ivoire ànd ak Soleil national dem Cap Vert fanweeri doomi aadama ak juróom-ñett yi muccoon ca gaalu fas boy ga ca Cap fanweer ak juróom-ñaar ci ñoom Soleil national nee nañu état bu Sénégal dem na jëli leen ba delloo leen ci lu mi kenn rek moo fa des te ak wér gi moo ko mayuloon mu ànd ak gaañi ñibbisi mën nga ñu tëye ca Cap di ko fa faj Le Quotidien di ñu xibaar ne bu weesoo ñuy delloo si ci réew mi juróom-ñaari nit ya ñu fekkoon ca gaal ga ñu faatu ci tribunal flagrant délit benn waay bu ñu naan MAD moom la jabaram Fatima bett ak beneen jigéen jabar ji ñëw di kaas waa ji def ko histoire jàpp jabar ji dóor ko ba coow li teere ji tribunal moom jëkkër ji di MAD sursoi neen ñu bi mu jugee màkka yàggul kaalaam